ñu ñëw tey ci tomb boo xam ne alquran moo ñu ko jàngal yonent bi leeralal ñu ko mooy riayatul aytaam wa muamalatuhum fil islaam sàmm gi ñu yàlla sàmmuloo ñooñu ñuy woowee jirim ak jëflante gi nga xam ne moom lañu ñu war a jëflanteeg ñoom naka la ko lislaam tërale jirim mooy xale bu ñàkk baay xale bu ñàkk baay xale bu ñàkk way jur xale bu ñàkk ki ko doon yar xale bu ñàkk ki ko doon sàmm xale bi ñàkk ki ko doon toppatoo xale bi ñàkk ki ko doon yiir lislaam di sunu diine def noo sàmmuloo jirim mu def ko muy warugar ñu war a taxaw ci seen wet di leen dimbali tàllal sunu loxo pour jàppale leen yàlla ne loolu fay bu rëy rëy rëy moom la ci teg képp koo xam ne yaa ngi yor jirim ci sa wet yaa ngi dimbali jirim yaa ngi aar jirim yaa ngi jàppale jirim yëgal ne yow sunu borom subhaanahu wa taala mooy ki lay fayal boppam ndax jirim yàlla ko sàmmuloo ci alquran yonent bi feddali ko sallallahu alayhi wa sallam ngi nettali benn chaîne ci alquranul karim di leeral foofu ñi nga xam ne ñoom ñooy jël seen alal di ko dépassé ci yoonu yàlla amul kenn kuñ koy jox lu dul miskiin ak jirim ak jaam yàlla mu ne gaa yooyu wa yutimuuna taama dañuy jël ñam di ko leexle di ko jox nit ñi ñuy lekk saa yu ñuy ndékki danañ joxe ndékki saa yi ñuy añ danañ jox seen moroom mu añ saa yi ñuy reer danañ jox seen moroom mu reer saa yi ñu yégee nit a ngi ci koñ bi ku soxla danañ ko jàppale waaye ndax ñooñu rek lañuy jox ak jirim ko wéy juróom génn àdduna ak jaam boo xam nente ne yorul taqul waaye ñooñu ba ñuy joxe seen alal jooju di ko jox ñetti ñii ak alal ni ko yàlla saxale ci xol nga xam ne même poos bi sax ci côté gauche la nekk ci xol bi la tegu poosu dënn ma nga tegu ca kaw xol boo ciy dugal sa loxo sax dangay gis ndeysaan ni muy amee direct ak xol bi waaye ñii moom iblis mënalu leen dara seytaane tënku leen seen xol du leen boloke ndax ñi ngay xalaat yàlla moo tax dañ naan innama nutimukum li wajihillah lii ñu leen di jox ndimbal gi bëgguñu sax nit yëg ko man yow ak yàlla ndax lii may def yàlla rekk rekk laa ci bëgg laa nuridu minkum jazaan wala shukur bul ma gërëm bul ma sant bul ma remercier ndax yàlla mi tax may def yàllaa ngi gis te yàlla ku ko lebal ker guddi la lay fay seydina aliyin radiallahu anhu wa ardaahu huseynu dafa feebar feebar bi metti trop moom ali mu daal di nëzër ne yàlla sama doom ji boo ko wéralee dinaa la woral ñett fan ndax gërëm la sant la yaay ji daal koy dégg di Fatima di doomu yonent wi alayhimu salaam ñoom ñëpp yal na jàmm nekk ci ñoom moom tamit mu ne ko bis booy woor sa ñetti fan yi wax ma ma wooraale yàlla wéral Seydina Xuseyn Ali ak faatima tàmbalee woor di sant seen boroom ci lim leen defal mooy may leen seen doom nekk ci jàmm delluwaat ci aafiya wér premier jour bi ñu woor ba ngoon war a dogu benn miskin ñëw fëgg bunt bi Seydina Ali yu ubbi mu ne ko ñetti fan a ngi nii lekk duggul sama gémmiñ ndax amoo loo ma dimbali mu dellu ca biir kër ga boobu ndogu gi des na ay minute mu daldi di buub ndogu gi jox ko mu naan ndox guddi jot mu tëdd fajar jot mu jogaat woor ba ngoon jot mu dajalewaat ndogoom teg benn yatiim ñëw ku baayam génn àdduna ne ko ñaari ñetti fan a ngi lekk duggul sama gémmiñ mu joxati ko ndogu mu fanaanoo noonu kontine koor gi ba ca ñetteelu fan ba mu defarati ndogu mook soxnaam Fatima ñu bëgg a ndogu benn jaam ñëw ne leen ñetti fan a ngi nii lekkuma waaye la yéeme mooy bañ leen di jox lekk gi yëpp ñu ngi leen di wax ne yàlla rek a tax de bu ko kenn yëg ñun ak yéen ak yow ak yàlla kuñ ku ci jox ñu ngi naan ko ñun ak yow ak yàlla bu ñu romb ci mbedd ñi nga naan jërëjëf Samba ak Demba déedéet ndeysaan ñetteelu fan wi fa ñu joxe ndogu ba gee di waaj a jot ñoom ñett ñu ñoom ñaar ñu daal di xëm ndax lekkuñu yàlla wàcce aaya bi di leen tagg naan wa yutimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman innama nutimukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura jirim mooy ku ñàkk baay balaa muy mesure kooku na yëg ne moom mi jàppale jirim na yëg ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man ak ki yar jirim ki toppatoo jirim maa ngi moom nii ana wa kaafilul yetim la wax maa kii yar jirim mu daal joxoñ baaraamu joxoñ bi ak ba ca tegu mu ne man moom nii la ñuy mel ëllëg aljanna yàlla subhaanahu wa taala nee na wa yasaluunaka anil yataama qul islaahun lahum xayr wa in tuxaalituhum fa ixwaanukum wallahu yaalamu almufsida min almuslih borom bi nee na buñ la laajee ci jirim yi lan lañ war a jëfanteeg ñoom borom bi nee na wallahi yéwénal xale bu ñàkk bàyyi ñàkkoon ku ko war a yiir ñàkk ku ko war a toppatoo ñàkk ku ko war a aar ñàkk ku ko war a taxawu ñàkk ku ko war a yar ñàkk ku ko war a financé kooku mbokk dëgg dëgg dëgg war na am ku taxaw ci wetam war na am ku ko jàppale balaa muy màgg di gis wéetaay balaa muy màgg di tumuranke balaa muy màgg di taxawaalu du am kenn ku ko toppatoo ñoo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza mu def ci ñun dégg ak topp te boole ñu ci ñi nga xam ne bu ñu gisee jirim yërëm ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.